coronavirus ak mboolem xew-xewu diine ci réew mi kenn wumpulewul ne fépp foo xam ni boo fa sànnee mbàttu mu takk takkal li ma lay bëgg a wax ak fu mu mën a doon ci àddina ci jamono ji ñu toll la mu mën a yokk ci mbas mi wopp fuuf la mu ca mën a wàññi muy màggal di gàmm mbaa sax na nañu xam ne ak lu bës rëy rëy day jàll te ñu ko yàlla waaye wopp si moom mën naa wéy di fi des ba kañ laaj la bu mbindeef tey ci àddina amul tontoom naa même askan way feebar te askan wi ci boppam ñooy màggali ñooy gàmmu ji képp ku ci dem kenn werantewul ni jaral na la ko waaye jàppal ni boo fa jëlee feebar bi mbaa nga yóbbu ko fa tooñ nga sëriñ bala taxoon a jóg ndax ñoom amuñu dara luy lore kon képp kuy waaj xamal ni addiye bi jiitu nga war koo ngànnaayoo mooy sa masque ak say loxo yu set dandante di sorianto moom bu ñu waxantee dëgg mënu fa am foofu ci Touba xalif général ba di sëriñ Muntaxa Mbàkke eh, Basiru sàkku na ci ñëpp ñu sàmmonteeg diglee fajkat yi ku ne xam na ni bu budul woon yërmandeem ci taalibe yi xam seen xër ci sëriñ Touba Xaadim Rasul la am màkk te yonent digle ko fu la mbas fekk toog fa mooy am foofa ci Touba lépp la ñuy tëj ku ne màggale fa nga nekk rendi say gàtt bexndeel say dëkkandoo am sa màggal màggal gi ren pas-pas bu wér la laaj bu ko kenn réeré na ko ñëpp xam te nguur gi itam bañ a toog seetaan naan suñu yoon nekku ci ñoo ko sombi nañ ko naan nañu jël seeni responsabilité ñoom kilifa yi fexe ba ni ñu ko waxee ku ne ak sa masque doon lu law fépp ndax fëgg ci taabal ji wax ko yomb na waaye jëfe ko mooy lépp solo mu bañ a mel ni diggante waa orange ak ARTP mbas mi bëgg rey ni ñi orange dikk bëgg leen a dogali àddina yëpp ci teg seen i gët ni orange faale wuñu ARTP jël forfait jox askan wi di leen ko jaayee Illimix te benn pexe amu ci ndax wër nañu ndomb réew mi ba wiiri wiiri jaari ndaari muy téléphone fixe di connexion mu baax mbaa mu bon ñoo fi ne wax ji di ndax président de la république dina ko seetaan amaana seetaan na lu ko raw fuuf di grève waa SYTJUST bi di liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon fii ñu toll tembe am na ñaari weer seen grève boobu maître Malick Sall ministre de la justice taxaw fa mu taxaw ñi ànd ak maître Aya Boun Malick Diop taxaw fa ñu taxaw te askan wi dong ñoo ko yëg waaye du ñu dab prisonniers ya nekk ca kaso ba ba fi mbas mi tàbbee ak tey amatuñu visite la ñuy daj mburu daj ko ca taal ba kenn seetiwu leen mu mel ni dañu leen tëj ba pare damm ca caabi jë nañu leen bàyyi xel te di leen dimbali ñu mën a gis seen i mbokk sonn nañu te mënuñoo wax ñu wax ca la xew Mali coup d'état ci Afrique gàcce la ci ñaan yàlla mu yem fa